gis nga école yi dafa jar ñu taxaw ci. xam nga école par essence euh, euh, dafa doon espace boo xam ne euh, normalement xale bu fa dugg war nga rëcc ci yu bari. ndax dañ lay yar dañ lay encadrer et dañ lay protéger. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey liñ gis mooy que école yi ci boppam dafa amatul sécurité boobu sax. Mm-hmm. n'est pas un milieu aussi sécurisé ba drogue. aujourd'hui dugg na fa. man mii wax ak yow du tudd benn école. mais bëri na ay responsable école yi ñu woo téléphone nañu dem ba génn ñëw suñu école wax ak xale yi. parce que jàpp nañ fii ay xale yoo xam ne dañu consommer drogue fii ci biir école bi. mais du benn loolu day tey yàgg na yàgg na man récemment nii rek am na école boo xam ne dama fa ñëw daanaka li ma fa intervenir bëri na j'ai fait séance ay ay presque une vingtaine de séances parce que dañ dajalee école bi yëpp ñu leen di jàllale par groupe. ku nekk ma ñëw bu ñëwee ñu def ay séances de sensibilisation avec les élèves parce que on avait constaté qu'il y a effectivement des élèves yoo xam ne dañu consommer drogue ñenn ñi dañ leen jàpp dàq leen yenn élèves yi dañ ne ma non ñii dañ leen waroon dàq en principe mais on vole donner leur chance parce que ay xale yoo xam ne lañ ñu ngi en classe d'examen seen mm. waa seen waajur dañu sonn ci ñoom donc ils ont fait cela dañ leen waroon dàq en principe mais dañ bëgg yéen yéen ñëw wax ak ñoom ñu jox leen chance mais bu leen jàppaatee dañ leen di dàq c'est des élèves qui sont en classe d'examen mais loolu mooy réalité bi. loolu taxoon élèves yi élèves yi dañuy tux yàmbaa ci biir école yi. Mhm. dañuy naan sàngara boobu moom fan la raay ba téye université moom c'est la bombe université c'est la bombe parce que contrôle ba minimum bi am école sax amul foofu. donc ça c'est une réalité aujourd'hui mieux am na enquête bu ñu def en milieu scolaire ONUDC office des nations unies contre la drogue et avec la division de la médico-scolaire bu ministère de mhm. nañ benn enquête. bi 2019 bi passé nii enfin pas 2019 2000 euh, en tout cas 2000 2000 presque 2020 21 je crois. Mm. def nañ benn enquête sur la consommation des drogues en milieu scolaire def nañ établissement yu bëri à Dakar et dans certaines régions mais les chiffres sont alarmants mm-hmm. les chiffres sont alarmants dañ lay wan que ici au Sénégal boo xoolee élèves yi nga xam ne ñu ngi am 15 ans jëm kaw. ñaari niveau rek lañ jël quinze seize ans. Mhm. parce que enquête dañ koy Sénégal ak Côte d'Ivoire ñaari dëkk yooyu rek lañ ko def enquête auprès des élèves qui ont quinze ans qui sont dans le moyen secondaire mais déjà les chiffres yi ñu am day wane ne boo xoolee ñiy jël ñiy tux yàmba 3 pour cent des élèves ont consommé du yàmba. Mhm. un peu moins ont consommé un peu plus d'ailleurs consomment de l'alcool. Mhm. je pense à peu près 15 pour cent. dañuy naan sàngara. dañuy naan sàngara. sachet bi avec avec avec avec. booy xam nga ñoom du ñu jël bu dee sàngara di naan. Mm-hmm. comme mag mu toog ci baar duñ ko def. Mm-hmm. mais ay condi dañ koy conditionné ci ay sachet di ko di ko mm-hmm. consommé. donc loolu moom bëri ñu élèves yu koy def bëri